dama dama nekkoon ci ci kaw man ak euh, suma ñaari doom yu góor yi euh, ñuy def suñu sport ci salle bi ci kaw euh, jékki jékki-jékki rek suma soxna yéeg ci kaw daw yegg si wax ñu ne kër gi mu ngi tàkk ci loolu donc ci la ñu wàcce man ma wàcc ànd xale yi ñu ñëw effectivement gis ne oto bi am na lu ñu sànni ci wetam benn butéel bu def genre xaw ma cox la ci def xawma lan ak essence mu ngi tàkk ci wetu oto bi ba oto bi ci boppam une partie toj nañ ko taal bi jàpp na ko ñu nekk di fay loolu ndekete ci kaw aussi sot sànni nañ fi beneen boobu aussi commencé euh, tàkk ba gis ngeen lakk-lakk yi nii sama ginnaaw euh, am beneen boo xam ne sànni nañ ko ci diggante sama mur ak muru école bi ci biir ba loolu commencé di tàkk aussi heureusement que suma voisin yi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant parce que ñoom bi ñuy yegg si juste fekk man may wàcc di jéem a fay li doon tàkk suuf parce que kër gi yàlla def na njaboot bu sew laa yor ak sama soxna euh, donc voilà góor ñi chauffeur yi mu ngi woon ci ginnaaw ci biir néegam donc le temps que may wàcc di fay mbir mi ci la ñu ñoom def nañ seen forfait ñu daw mais bi ma interrogé gardien bi daf ma ne ñi fi ñëw fukk ci fukk la ñu toll environ dañu dañu dañu takk ay kagul dañu sol ay kagul ba kenn du leen mën a xàmmee Euh, loolu nag laa ne bon def nañ ko rapidement moom benn gardien moo fi nekkoon ñëw nañ takk nañ ko def li ñuy def jàpp nañ ko téye ko ñenn ñi sànni li ñuy sànni mu commencé takk après ñu dem seen yoon donc loolu lañ ma wax ne moo fi xew. waaw parce que ñoom ci seen bopp comme seen njiit dafa woote de manière irresponsable ne nit ñi nañu jóg nañu taal nañu lakk dëkk bi euh, loolu la ñu wax tuddee ko résistance may leen di wax ne euh, suñu démocratie sénégalaise amul benn menace. man tey damay gën a feddali sama engagement ci wetu président Macky Sall sama bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ce ne sont pas ces actes là ñoom ñooy tax ma remettre loolu en cause parce que Sénégal moo tax ma ànd ak Macky Sall te Sénégal moom ma ëppal sama kër ba tax na loolu noonu dafay nekk loo xam ne dafay dafay dafay dafa may gën a conforter ci sama engagement di wane ne bu fekkee ne da ngay jàkkaarloog nit da ngay jàkkaarloog moom mais li ñu def nii c'est des actes de lâcheté lâche rek moo mën ñëw ci kër guddi euh, téye gardien jël sànni ay kii ba pare jël ay euh, moto ak oto nga daw loolu ku lâche moo koy def euh, loolu nag acte de lâcheté yooyu laa ne mënuma intimider te mënul remettre en cause sama taxawaay ci réew mi ak ni ma ànd ak président Macky xam nga man mbay Jacques Diop moo ma yor moo ma yar te ku Mbaye Jacques Diop yar lii nii du la yëngal parce que benn yoon budul ñaar këram ca Mérina ay nit def par des événements politiques ñëw nañ ko jéem ko taal sànni fay xeer toj kon man mi nga xam ne tey dama yore ndonoom ci wàllu politique lu mel nii bu ma dalee sax à la damay sant yàlla damay sant yàlla parce que jaar-jaar la rek ci politique day gën a dëgëral sama taxawaay ci Tëngéej sama bëgg Tëngéej gën a dëgëral sama engagement ci président Macky Sall ak ci coalition Benno Bokk Yaakaar parce que loolu réew moo ko tax su ma xale yi nga xam ne ñu ngi ànd ak man ci politique parce que ñun ñëpp xamante nañ fii Tëngéej ñu ma doon wax naan wéy euh, responsable jeune Pastef fii la dëkk ñi naan responsable adulte Pastef fii la dëkk naam bu ñu bëriwul sax dañ ñëwoon dañuy dem fayu ji ma ne leen bu leen def loolu parce que réew mi aussi euh, li ñuy wax loi du talion waru fee am réew mi dafa am yoon euh, bu leen def loolu bu leen topp ci loolu ndax ñooñu it gam bu ñu dee politique même bu ñu woowee ay jeunes waaye derrière ñoom dañu am ay wayjur am góor yaay am baay ami jabar ami doom donc ñoo ñooñu defuñu dara kon boo leen yàqalee seen kër aussi ñoo ñu nga yàqal waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk su le terrain politique yàqalu leen ba tax na lii ça ne me ça Euh, amul lenn lu ma def euh, tey dafa may gën a dëgëral ci sama taxawaay ci politique ci ci dafa may gën a dëgëral sama taxawaay ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bi ma bokk gën a dëgëral sama taxawaay ci wetu président Macky mi nga xam ne suñu ànd dañ ko lal ci dëgg ànd ko ngir Sénégal